tolloog nag di attirer rek attention nit ñi ndax ci suba dama jot benn information ñu wax ma ni ma xam dëgg la moo xam du dëgg ñu ni ma njabootu Serigne Mbaye Sy dañu wax ni ci bëccëg bi dina ñëw course bi pour yàq gàmmu gi yéen a yey di tàccu fekk na bi gàmmu gi desee ñaari semaine muminun min ali firaun yaktumu imanahu ñëwoon ci man ni ma lu ngeen taxaw doyul ndax seen bokk yi mobilisé na wuñu ci wàllu mystique pour lépp lu mën a yàq gàmmu gi danañ ko def waaw ma ni bu mystique jariñul ci mille neuf cent cinquante du jariñ tey dafa tolloog nag pexe baaxul ndax ci mujjantalu dundu Serigne Babacar de dañoo créer benn situation fexe ba impliqué ci ñoom président Lamine Gueye Lamine Gueye jël événement ba exploité ko politiquement léegi bi ñuy ñëw rek sëriñ Abdou Aziz mu ma koy wax ni ma bu leen dal xel mukk ndax am na ay lobby yu nekk ci biti ñu nga xam ni dara du seen xalaat lu dul utiliser ñi fi ne pour lu ñu mën a yàq ñu yàq waaye xam nga sëriñ Babacar njabootam yi gënoon am solo bi sëriñ Babacar di wuy gi boroomam fekku leen ci biti ci prison la leen fekk waaw bu ngeen di tàccu da ngeen di déglu li ñuy wax ba noppi am na loo xam ni ku ko tàccu boobu dégluwuloo